रख स million mm-hmm. Sukama. बलेव Vai!

ebeden mevlet. لا boobu nga xam ne mooy mooy boobu riba bu wóor moom dama ne boobu riba boobu da koo daaj soppi ko di ko daaj sëñ bi ne sëñ bi ne boobu dañ boobu dañ nuyu rek boobu nañ nañ ko nañ nañ ko sax nañ ko saxoo di ko def waaw fekk na boobu bu ji mën a jëkk a wax ci yaari pare yi moo moo jiitoon gannaaw bi riba boobu soppi soppi boobu nag ci digg bi mu ne boobu mu ne boobu tax boobu wéy na nawi boobu mënee na koo dégg waaw moo waaye bu bii itam waaye bi itam ni sàmm ak mbaykan ñoom ñaar lañu woon ñoom ñoom dañu faa ne woon di def mënu àggalee mu ñu teg ñaar ñooñu it doon nañu jàng jàng mu yàgg sëñ bi ne ndax moo loolu daaj boobu moo moo ko tax ñu wàcce mooy daaj boobu ñu koy daaj moo tax ñu wàcce mooy mooy daaj nga xam ne nag moom gaañu lañu koy daaj te mu mooy bi bi biñ mujj woon ci ma wax bi am mooy biñ jëkke woon وأحسر تسير قيس يفور نور تفور بلا زيجة يرينا لو يرينا يوم يرينا بلا زيجة قد عزب الله من أسرى بالمجارة بالمجارة bañ fi mën a fekk bu may ba àgg toujours waaw euh, waaw bëri ma diine loo mooy bii même ma diine loo moo ko daan jàngal Sëriñ Tuubaa ci Jolof ba njëriñ ma nga faatoo Jolof diine loo nga ba njëriñ mu dégg ma sàmba di ko jàng guddi Sëriñ Tuubaa taxaw ba mooy ba àgg mu ne fere yi kuy kuy ci wàll gii fii kër gi ñu ne ko ku yor mooy bu mu ne ñu ne ko ku yor mu tam waaye nañ ko xool ko xoolee ba mu dikkee mu ne ko yow dañu bu mu ne ko mu ne ko yow jàng foofu la bi mu tàmbali mooy na ko ko jàngee jàngee moo diine lu wii ba àggal sëñ bi ne ko yaa ma fàttali bii ma diine yoo saa tali yoo gàññal ndax ko fàttali bii ndax man ngaa sax di ko fi jàng si ma sàmm ne ko bu baax mu tàmbali di ko fa jàng ba yàgg mbaykat di ko ñaareel ci ko ñu bokk di ko jàng ba ñu bokk faatu ñoom ñaar ne ne ne daaj boobu moo waral rek ñu wàcc mooy daaj boobu parce que waral ñu daaj bi nga doon wax ne euh, bu ñëwro bu boobu bi mu soppeegul daaj bi nga doon bi nga waxoon sànq ne moom la soppi booba noonu la nga ko daa daaje booba daajub gis bi nga ne moom la moom la soppi def ko muy daajam boobu daaj daaj bu daaj bu jëkk boobu nga xam boobu nga xam moo moo jiit noonu मथा मथां ममो नथू नथू नानी मथु नमो ॾिन बाजू मुल آمدنا نعمتنا وموتنا فرحتنا والجود مسجدين إني أقاتب الجميع مسليا على الرسول مسلما على الرسول kooku noonu moom la gis moom moom moom la dafa am ñaari wax yu ci ci nettali nit ñi mooy ñu bëgg ko leerlu benn ba moo di dañoo wax ne da cee am daaj boo xam ne taalib yi sëriñ bi ci boppam lañ déggoon mu mas ko ni jàng ñu jële ko ci moom am beneen boo xam ne dañoo wax ne da sëriñ bi dafa wax ne da ko mës dégg wax ne noonu mooy ni ñu ko wàccee boobu nag dama defee ne mooy li nga wax sànq rek ne euh, mas na koy déglu wax ne boobu moo tax ñu wàcce ko xam naa boobu la xaj na mas naa mas na mas mas na mas mas na mas na ne day ne ne toog na bis itam di ko nett di kër boo sëñ Masamba ngi toog boobu kër man naa nee naa ko ak keneen ngay jàng nii ba ak si nii ma nabi wa rasul nii ma la si jaada bi fi danaa bi rabbi jamil ñu si nii wala xam mu ne mu ne déglu leen ñu déglu mu ne nga xam moo sëtu ko way woo moo am am na bés bu moo sàllaw jóge na ma kaw lool damaa toog fii am ku fe ku nekk ci féete kër Ibra Faal ma nga naan ma nëbbi war a sol ni ma la si jaada bi son lan naa bi rabbi demee ñu si ñoo la xam nee ma ne bërët ne laxasaayu defoon na keneen la ko wax wax waxul ma ñaari jéego nee na teg nee sa borom ma seetal sa bopp gëstul sa bopp ma xam waaw nee ma nee ma gëstu sa bopp nekk maanaam nee ma soog a dëlsi nag ma soog a dëlsi soog a noyyi Thank you. nema to bude že doba slavné. Ne, tak to moci, tak to moci ho neka nema. Mun ko daal ci lu ma kenn ku ko def. Dana dana dana ci ma xallo. loolu nga doon nekk li itam ci ci mbirum sëñ sëñ Saliou ci ca ndaam ja. waaw nga bamtuwaat ko fii tey. mën naa ko bamtu. noo danoo toog maa nga ca góor ca tool ya loolu soxna si ko jaxate sosoo ko jël naa la ko maa toog nekk ca tool ya ba mu jàdd dongo ju demee ca kër ga dikk waaw dikk ne ma ñëw luy ma dal di ñëw naka ma agsi te dox fa sëñ daam mu ne ma demal kër soxna jaxate ndax sa li moom de dafay tàng boobaak tey daal ba ma toll foofu laajte mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne yow moom yaa ko yaa tax mu mu mu tàng ne dama bëgg daal nga ñëw moom mu jox ko dañ ko joxoon ñaar mu ne du lekk ci dikk la balaa lekk rek nga ñëw waaw demal demal ci soxna Jaxate boo demee dana la ko wax ma dal di def jaleñ fekk boobu sëñ Abdourahmane ak sëñ Mbàkke Jaxate ak keneen ñoo fa dikk soxna Jaxate ganale leen rek ganaar yu bari tere tere lay yu bëree bëri ah ak meew ba nga xam ne yàlla te ne so sëñ bi wax loolu ñu woote ma ca tool ba ma dikkee dañ bi noo wéer ca soxna jaxate ba sëñ saali wala soxna ma dikk rek mu ne ma sëñ bi soxna si na ma saali mu saali ma dégg ah ñun dana jaaxal ndax ca subaa tey daal ñu ngi tàng lool ba xamul lu ñu def mënoonu sax a xamante lu ñu def ne rek balaa balaa di dikk rek ne laa dégg nga ñëw rek ba ngeen ba ma ne ko ah ma doon sukkur suuf ne ko maa ngi nii mu dal di ba xar bu rëy dëgg ci sama kanam cere lay ak ganaar yu bari moo nag daa am na xale na sama loolu dégg nga daal di naka ma naka ma sukk mu dal di def ci sukk may moom ci saawe ah soxna si ne ko yaaram mun ne mu ne ko ah, mayu ga ngoog mu dal ni nii sama loxo ñëkk sama loxo def la moom si moom si daal di tàmbali mu soog a tàmbali dal di dal di dal di bàyyi tàngoor ba mu ne ma mun nekk nekk nekk nekk ba nga xam ne daal ah, man de naa ne la ma ca lekk moo ma téye ba tey lekk naa ca la ma <laughs> te sëñ bi Aliou jaaxal na ma jaaxal googu ëpp na ne billaahi booba ndax ma xareen te xiif naa lool hmm, dégg nga may lekk ba ba ba ne ko noppi naa mu ne ma lekkal ma ne ko noppi naa mu ne ma lekkal ma ne ko noppi naa mu dal di gees nii dal di dal di ma joxoñ raxas ma dal di raxas soxna si ne ma danaa noppi ma ne kon ne raw na yi mën ngaa nee naa ko noppi naa mu ne ma baax na mu ne ko yaaram doo ko ne lekk mu ne ko wax naa ko ko di mu daal di ko ne mu daal di wax loolu dakk di laa doon doy moom soxna ma daal def ñettet mu di ma xool mu ne ko mu ngi dem bi mu ne ko waaw bu yeboo nag dem <laughs> وانا قاعد ذكرنا لكم ذكر زينا زينا منو لم من من نتلكم زينا من خلاص نعم دي كان خمول لوني دون لك خمنا تخلو عن قبل ما نقول وانا قلت ودل وانا بدل تقول صار جاتني بول بول يمكن وانا اللي كنت لنا اه والله أتمنى عليك لو خمسة لا بد من الصحن تحته ràññikul ne daana kii de bu nit nag mu lekk waaw loolu de am na loolu de loolu moom loolu lañ xam boobu daal alim dafa naqari lool naqari na lool boobu ndax bëri gu benn bana te te déwén sa la ndax arin ah, bi dafa jëru boo sëñ ko am tax moom la ñuy dundee waaw moom lañuy dundee doo cere kenn ñi nag ñoom lañuy cere di jënd soxna soxna soxna soxna soxna xarit sax na fa am booba ñoo ñu ñoo